Boucher nuyu naa la Boucher naka mu sa teewaay tey lan la. à vie à vie. jël waaw journée bu neex la di ñaanal ñëpp am jàmm ñëpp am taw fii ci suba si ñu am. ñu ko toll ci say combat laaj ay tapet yu bari. boo yoo xam jaruñu sax 500000. 600 daa jar 500000. yoo xam ne 500000 lay laaj ci bërëb yooyu. loolu yow parce man lay bëreel. buñ seeti mu naan 5 millions naan ay biir dafa bari gàllaaj ak daf may liggéey ban gàllaaj fu ci bëreeg man ma jaay la dooleel daan la xale bu ndaw laa bàyyiwuma sama bopp foowu ma caaxaanu ma xaalis rek laay liggéey. jàmbaari sëñ Touba bi. lan à part Ziza. na bëreeg man nañ ma ko jox ma duma ko. xale yi da ma ragal. maa ko fuuf. am na am na ku bëgg combat boobu. waaw gars yi ñu ngi ciy dox mais dañuy laaj xaalis quoi ay 5 millions parce que poussé laay bëreel. daa bëri jàppale dafa bëri kàllaaj. mais yow xam nga yow Issa Pouye combat bu ko xalaat sama. fii maay borom fii ñaari yoon daan. bu ñu amee nañ jël avance bi a laaj xaalis bëri ay jàppale la monsieur Ngop nee na moog Issa ñu ngi koy dox. ñu ngi koy dox projet nee na moo gisaa puy ñu ngi koy dox